This melody that makes me think of you Tu sais que l'amour là c'est entre nous waaw comme ni ko moom moo waxee rek ah, ñun ci beneen côté bi actuellement nii di seen ambiance fii ci ginnaaw dañuy def dul rek doxo jéem a doxoon te ànd ak sama cameraman ñu daal di xool xool xale góor ak xale jigéen ni ñu nekkee ci biir sama cameraman topp ma maa ci biir ñu xool ambiance ni mu fa demee noonu ah papa noo dundee été bi tey ji waaw bon ñun xam nga sunuy naataango lañu di leen gërëm ci liggéey bu am solo bu ñuy def donc moi aussi journaliste là. donc de profession donc euh, ma direction générale SNHLM en tant que conseiller technique en communication donc de Tamba Am nga tey boo xoolee dañ nekk ci dëkk bi nga xam amuñu géej amuñu dex donc ça euh, vrai day tàng mais nga ñëw Dakar aussi tamit ci nawet bi mu tàng amoo lu plage donc tey ñun ñu ko xamul tey wax dëgg yàlla jóge suñu kër ñëw ci plage bi lu rëy la ci ñun donc dina dàq un peu chaleur bi vraiment brise bi di nga jël beneen air daal euh, vacances lañ nekk il ñu dund ne vacances lañ nekk ndax ay fan ñoo ci des vacances yi jeex ndax da faral di ñëw sans vacances yi wala yow chaque vacances rek ngay faral di ñëw chaque fois fii euh, vacances rek laay tàmm di ñëw vacances xam nga vacances mooy moment propice boo ko seetee tàngoor bi donc ñoo place dina tax tàngoor bi vraiment nga dàq ko sa yaram. xam nga jël brise bu neex vraiment nu ma duggee ci ndox bi génn wax dëgg yàlla centre naa ne ne tey beneen air laa am. ni la gisee nii defe naa ko bëgg lu baax nga yow. waaw waaw mais xam nga góor rek góor moom foog mu bëgg lu baax. Mhm. xam nga surtout boo jegee dëkk bi nga xam ne ne xaw na sori donc ñëw fii. gis fi lu neex li vraiment day bégloo sa xol. nga ciy profité ni mu la neexee. woo fu mu toll nii moom xam naa bu ma eggee sama kër moom mën naa sax bañ a reer dinaa tëdd rek naraw ndax ndax xool gi feex d'accord yow nekkal ci jàmm kontaan ci yow trop merci beaucoup à la prochaine. kon mbokk internet yi ginnaaw bi ñu jugee ci ki nga xamante ne mooy Chérif ñu gën kaa xam ci Chevron ñu tasante woon ak moom fii nga xamante ne mooy plage Ngor bi def ak moom li nga xamante ne mooy waxtaan bu ndaw rek mu daal ñuy xamal daanaka lépp ci vie privée ba tax na tamit ñu ngi continuer di wéyal suñu émission li nga xamante ne mooy li si bi am na nag ay gars ñu ma gis fee ne xaaral ma daal jàll daal Euh, waaw copain ñu fekk la fi nga xamante ne mooy tey ci plage Ngor bi première plage nga toog di féexlu yàgg sa gars ah, waaw fii moom féexlukaay bi la dëkkuwaay bi la yaa ma gën a xam. waaw fi dëkk à ah, tout temps fi la ñuy nekk xam nga féexlu toog waaw rey fi suñu temps waaw yaa a xam. Euh. ànd ak waaw xam nga toog naan ataaya. ba heure bi jeex ñu dem ñibbi. ñu dem ma gis ne Ngor tey jii nii ku fiy ñëw ci plage bi da ngay ànd ak sa gel mais yow dama la fekk nga toog ak euh, sa gars yi àndaloo ak xaw ma ba xam am nga jabaram déet. waaw ñun moom amuñu soxna quoi waaw ay célibataire lañ <laughs> waaw mais suñ gars yi lañ am waaw soxna yi moom xamaan <laughs> mooy loolu dañ koy bàyyi góor yàlla yi <laughs> ñun ay célibataire lañ. ay célibataire waaw. Euh, nan nga gisee euh, vacance bi Ngor nu muy feesee di ngeen fi gis lu nekk yéen ñi nga xamante ne yéen a jege côté Ngor bi. maanaam dégg naa ngor moom lu ne lañ leen di waxal ba xam loolu moo ngi fi wala. Ah, waaw fii moom lu ne la ñuy wax waaw naan ngor dafa mel ni dafa mel ne mais alors que ñi fi dëkk moom waaw comporté woon fii noo xamante ne si war nañ leen ko mën a jiñ parce que ñi fi ñëw bu ñu en général fii la ñuy toog wala ñu fi ñëw yenn heure bi lañ fiy ñëw toog bu seen heure ñibbi dem ñu ñibbi amaana kay luñ fi wax rek si loo xamante ne si dañ ko fi gis ñi fiy ñëw ñoo fi andi waaw mais pas ñi fi dëkk moom ñi fi dëkk moom. macha allah quoi xam nañ fi ñu teg seen tànk waaw place bi jaaxalu leen parce que fi lañ juddoo quoi oui. jaajëfal nañ la Fall kontaan nañ ci yow. yaa ngi dund été bi nag yaa ngi koy dund bu ngi def sa pàcc bu baax xam naa ne incha allahu rabi balaa déwén di nga am soxna ah waaw amin waay yàlla la yàlla dégg waay <laughs> incha allahu loolu mooy am fi nga xamante ne tamit mooy Ngor doon def suñu émission ba nga xamante ne mooy li si bi li si plage bi nag nee leen li mu war a bëri na ndax dajantantañ fekk ay ndaanaan yi nga xamante ne mosuma xalaat na sax dinaa leen gis waaw tey nag ñu defoon ay interview yi nga xamante ne wax nañu plage bi nan la dikkee wax nañu plage bi nan la fa tëddee ba tey maa ngi dalal ki nga xamante ne mom tamit da ñew ci plage bi pour fexu señ bi jaar nañ la. waaw delloo nañu ziar bu baax a baax. Euh, sëñ bi tay no gisé plage ngor bi tay nek teju saison plage ngor bi ndax xam naa ne dimanche bi di ñew day fekk élève yépp commencé wat jang na nga gisé lool wa ma ngi koy rafetlu bu baax parce que tay mom nek na bés bo xamni wax di ma sha allah xol na ba xamni tay mom ngor mom ni mel tay dafa mel musul mel non wa mel na ni tay mom nek na bes bo xamni benn bés la boo xam ne macha allah rafet lu ñeen bés bu baax a baax neex na trop yow koo àndal tey ngor sa soxna si waaw sama soxna si laa àndal ngor tey ànd sa soxna si sama soxna si mu ngi si biir day sangu day sangu waaw léegi yow lan moo tax demoo sangu ak moom non man dama soog a génn moo tax man dangay soog a génn waaw damay soog a génn euh, nan nga gisee suñu télévision bi nga xamante ne mooy King Production ah. chaque jour day nekk ci li nga xamante ne mooy ndaw ñi di gëstu ci lan lañ war a nekk waaw maa ngi leen di gërëm di leen ziar parce que leen tamit seen liggéey bi jaarale ngeen ko yoon macha allah yow xamna naa ne instant yi moom ñun ñoo leen mëna a sant parce que instant yi liggéey bu melni bo ci si ñoo ñun téléspectateur ñoo leen wara a waaw waaw ñun ñoo ngi lu seen liggéey bu baax waaw jaajëfal nañ la yow tamit ñu ngi kontaan di la ñaanal déwén bo fi ñew yàlla nga fi ñew ak sa auto ba nga ñew fi ak sa avion mëna naa amin amin inshallah rabbi ta lol moy am inshallah euh, kon mbokk internet yi ma ngi tàggatoo ak ci li nga xamantane moy sama émission li plage yi lu si plage yi nag tey dajante nañoo ak ay ndaanaan yi nga xamante ne gars yi yëpp apprécié nañ émission boobu nga xamante ne mooy daw sur King Production nee naa la booy seetaan King bul fàtte di abonné di bës tamit notification yi pour nga xamante ne suñu ay vidéo yi ñu njëkk dugal yéen a koy njëkk a jox bii di ñëw ak beneen plage lay doon bu leen ko fàtte suñu émission sur King Production kese lay am It was this melody that made me think of you Tu sais que